waa mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziar di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu sumay fans eh, man maa ngi tudd Abdoulaye Diouf dëkk Kees këri kaw voilà. ah lu tax ñu naa ma seriñ kay moom dafay mel ni question bu ma yàgg laaj. Eh, comme li ma wax sànq bi may présenté wu nee naa Abdoulaye Diouf laa tudd muy tur bi ñu tëfli ci sama nopp mais à chaque fois artiste surtout boo nekkee euh, booy def comédie à chaque fois mun nga def dara loolu topp la Serigne Ngagne mu ngi jógee ci film buñ benn film bu ñu joué woon ma tuddoon ci Serigne Ngagne te film bi tudd réew taax mais ma tuddoon ci Serigne Ngagne mais boo xoolee film bi réew taax bi sax demul Serigne Ngagne rek moo dem euh, bi ñu ko joué réussite bi film bi am succès bi mu am vraiment neex nit ñi neex Sénégalais yi euh, moo tax turu Serigne Ngagne Law ba euh, ñu bari xamuñu sama tur Serigne Ngagne rek la ñu xam Serigne Ngagne su ma su ma déggee sama tur dëgg rek damay xam ni ku ma jege moom woo wala ku ma xam. mais bu dul loolu sëriñ Gueye rek laay dégg. aar bi ma ci duggee yàgg naa parce que fii ñu nekk nii tey biñ nekkee xale fii lañ daan fooy dafa ut ay màngu lépp ay toll fii tey gis nga àdduna dox bu fépp nekk ay kër ba tey man ma jënd fi kër tey dëkk fi nii mais fii ay màngu moo fi nekkoon moo nekkoon suñu ginnaaw kër yi. Euh, ñu nekkoon ci koñ boo xam ni koñ bu xumb la maire fi nekkoon yëpp benn lañu woon seen doom yi ñooy ànd mais lu jiitu loolu am na génération yoo xamante ni ñoo ñu magoon doon ay fii ay troupe théâtrale fii ci koñ bi ñun ñu juddu màgg xàmmee fekk fi loolu et que loolu day nekk loo xamante ni il fallait que ñun ñu mu neex ñu il fallait que ñu bëgg ko il fallait que ñu dem adapté wu ci loolu parce que loo judd rek fekk ko fi la dafay mel ne xale bu juddu ci kër rek màggee fa yoroo fa su fekkee kër gi làkk bambara day làkk bambara suñu làkk saraxole mu làkk saraxole suñu làkk olof mu làkk olof kenn du ko jàngal kenn du ko jàngal bu juddoo rek da koy man parce que ci loolu la judd ci la màgg donc ñun fi ñu nekk fi ñu dëkk dañ fi fekk loolu ay troupe yu mag ngay dem di seetaan répétition ñu lay dàq day wax doo dugg ngay am amour bi ñu dem ba màgg ñu nit dem dugg ci ci loolu moo xam naa ni bi may dugg ci aar xam naa ni samay treize ans matul waaw samay aw ma ans ay douze ans treize douze ans parce que am naa photo yoo xam ne bu ma ko xoolee naa xam ni tey maak sama sama doom bi presque ñooy nekk ay moroom quoi mhm. non non parce que booy xool man man euh, nitu nitu daara laa quoi pas daara mais arab laa doon jàng di jàng Madina Fall laa doon jàngee waaye oustaz Alla di ma jàngal alquran may jàng foofu non mais jàng na mën naa mën naa da mën naa ci dara waaw mais jiite de moom xam nga jiite moom méttiwul waaw ah, sax boo ko boo ko mokkale mën nga jiite waaw ah, mais mais xam nga nit kenn ku nekk ak li ko yàlla sedd nit dina débuté dara moo xam nga yaa ngi jàng français moo xam yaa ngi jàng arab wala yaa ngi jàng alxuraan mais nit ku nekk am na lu yàlla di tracé ci tundam nit kii ci lii mi ngi ci sonn mais peut-être ci lii lay réussir wala lii laa ko sedd benn instant mën nga ba ñu comprendre mais mën nga dem benn moment da ngay comprendre ñu ne dañoo dem ba comprendre lii ñu nekk moom la ñu yàlla séddee parce que ci dañu am teranga ci dañu yar suñu njaboot ci dañu dimbali suñuy parents suñuy mbokk képp ku yaakaar ci lii ñuy yëngatu muy ñaar dërëm muy ñett dërëm ci leen lay ci leen koy ci leen koy génn di ko jox doomu aadama yi kon xam nañ ni da ngay dem ba benn moment nga comprendre ni lii moom la la yàlla sedd et que koy xam nga jàpp ko sa fukki loxo ak juróom def ci fulla ak fayda bu mat. waaw ah, mën na ko dundal tey parce que bu fekkee tey ci yeneen réew yi la benn film boo ko génnee rek mën nga nekk milliardaire c'est que nag fi ñu nekk fi la mettee mais àdduna loo gis mën na évoluer ndànk par nànk parce que tey jii nii soo xoolee ci côté nigérien yi fi ñu toll ci wàllu film nga dem ci sud africain yi nga gis fi ñu toll ci wàllu film léegi léeg ñu tegale la film yoo xam ne du am benn différence ak bu jógee Hollywood surtout boo demee Afrique du Sud da ngay gis loolu parce que loolu lépp du dara ay moyens la ñu man souvent li may wax gars yi mooy ay jinne defuñu ko duñu ay rab ay nit ñoo koy def et que ñun man bokk man amul lu may impressionné man parce que nit ku nekk sa métier bi ngay yëngatu bala nga koo gëmloo nit ñi da nga koy gëm boo ko gëmul mënoo ko gëmloo nit ñi man li may def dama ko gëm du ma ci fo te ku ma gis may def di nga xam ne kii du ci fo même bu doon parti boo xam ne dañ ko war a fowee ma koy def du ci fo yow mi toog di ma seetaan di nga xam ne lii maa ngi ciy fo mais fowewuma ko parce que amour bi nga ci am moom moo tax et tey jii tey en tant que ñun ay ay artistes yoo xam ne tey ñi ngi dëkk fii ci Sénégal di liggéey yàgg œuvre di jox Sénégal yi ñuy bëggee tey jii sunu bët dañ koy yóbbu fu sori que ni fu gars yi àgg ci àdduna nigérien wala si Afrique war nañ fa àgg ba raw ko parce que boo xoolee ay benn instant rek ci ginnaaw ci côté cinéma acteur sénégalais lu ñu am ak ni ñu mel amul ci Afrique bi kenn koo xamante ni am nga lu mel noonu mais nag moyens yi fa la différence bi nekk parce que tey jii nii bu fekkee da nga am benn film budget bi tey jii un milliard war koo def wala deux milliards mënoo am benn deux cent millions tey jii ni nga bëgg si film mel ko mënu ko mel. que tey jii ñoom bu dee nigériens yi wala ñi loolu du dara ci ñoom benn milliardaire sax mun nañoo financer benn film kon différence bi foofu lay nekk que ñu ne ñuy ñu comprendre dañuy foog ni ah gars yi daal ñoo aay ñoo mën lii mais ñi mënuñu ko fekk na ñoom dañoo am moyen mënuñu dara sax mais dañu am moyen tey buñ soxla léegi benn jet privé mu taxaw xam nga genre comme yu mel noonu parce que loolu ay moyen moo la koy moo la koy may et ñun dañu manqué loolu parce que tey souvent lu mu gars yi di rapproché lu bari mooy lu tax cassette amatul parce que benn instant doon nga gis ñuy génne cassette muy dox am ay maison de production yoo xam dañuy ñëw nangoo financer seen xaalis parce que dañuy gagné duñ perte mais tu la nekk parce que piraterie bi moo tax tey jii tey bu fekkee yow producteur bi comme bu njëkk Lamp Fall production wala Africa dikk jànqen production investir ay millions parce que wóor na ko ne tey bu defee cinquante millions da koy génne cassette su génne da nga ciy da ngay leen fay xaalis. mais soo demee boo dugalee sa xaalis mënoo ci génne juróomi dërëm kaset bi tey lay génne suba gars yi ko wala réseau bi teg ko mun loo jaay doo ci dugal sa xaalis te amul kenn kuy liggéey ba pare après liggéey bi doo fayee ko kon kaset dafay dafay mujj de te loolu ñun kaas nañ ko ba sonn jooy nañ ko ci gouvernement bi wax nañ fu ne mel gars yi xalaat nañ pexe boo yaakaar xalaat nañ ko mais solution mënul am parce que tey bu dee réseau bi benn kaset lay jënd kaabale fii ba ñaata koñ fii lay dugal cassette bi ñëpp di seetaan mais cassette bi nga war a jënd à 5000 francs wala 7000 francs nga toog sa kër di ko seetaan mais bu la ko jaay 1000 francs doo ko jënd amatul valeur mais day daanu dafay daanu te léegi beneen système moo am mooy que léegi série yi mooy ñëw pour am a am dara parce que su boobaa xaalis bi ngay am doo ko yaakaar ci jaay cassette mais sponsor bi mooy dugal xaalis nga am dara moo tax léegi système cassette dafay dee léegi li am mooy série yoo xamante ne day taxaw sponsor yi accompagner leen jàppale leen pour ñu mën a am dara. waa xam nga ñu bari dañuy wax sëñ ngeen fecc mi sëñ ngeen fecc mi xam nga man animateur la parce que sama wàllu aar dama dama doon def bale ndax bale koo wax ne fecc dama doon tëgg bale di fecc di jox ay pas de danse bale bi dama koy monter. soo xoolee kees fii compétition bu fi mos a am mun naa ñàkk sax pièce mais bale mosuma ko ñàkk parce que ñi ma yoroon dama leen doon former ci fecc ci way xam nga def ay mise en scène yu day waar vraiment ñu def spectacle yoo xam fu ñu ko mos a def ñëpp dañuy jug taxaw loolu moom moo indi loolu mais ma xam nga man fecc di sama métier parce que kenn du ma woon ne ma kaay fecc ñu lay fay man man théâtre mooy sama métier mais ci biir théâtre bi lépp dama ko doon def dama doon tëgg dama doon fecc dama doon way rek laa dul def way mais ci côté animation lépp dama koy def su ma neexoon tey suba ma dugg studio génne kaset taas comme ñëpp dàq ñu ma ko mën naa ko dama ko jàng mais dama ko doon jàng pour xam ko man ko rek mais après ma xool lu ma neex ci biir loolu ma doxal ko moo tax tey ci wàllu spectacle su ma taxawee sur scène ci planche yi di di théâtre lu ma neex mën naa koo def parce que xam naa ne maa ngi moom yàlla defal na ma loolu waaye dañoo def man dama doon ñëw tailleur laa woon marché central di ñëw non benn dama dama tollu benn instant par rapport ak programme yi ni muy demee tey jii mënutuma toog benn place parce que sax maa ngi fii tey suba xaw ma fan la may fekk parce que gars yi dañ lay soxla fii spectacle fii suba fii ginnaaw suba fii des fois nga voyager def ay deux mois trois mois doo fi nekk des fois nga ñibbi si dem ay tournée benn benn société jël la xam nga. wala def benn route show a dara da ngay da ngay def tournée nationale fay la nga dem def ay deux mois trois mois doo fi nekk yooyu boo nee da ngay bëgg ubbi atelier yow xanaa yow xanaa nga ubbi ko jox ko ñeneen mais soo fa nekkee tamit da am problème parce que li leen nit ñi jox pour nga liggéey ko amoo jot pour nga liggéey ko kon li ngay mën mooy nga concentré wu ci benn affaire rek xam nga nekk ci quoi. ah atelier bi ñeneen ñi ngi fi woon mi ngi dox ba léegi ah ñeneen ngi fi woon quoi parce que dafa am sama benn xarit boo xamante ni ñoo nekkoon di mais moom moo mën atelier bi. bon jànqeen laa nekk jànqeen mi ngi fi ah ñoom ñu ngi ñu ngi def ay def nañ ay produits yoo xam ne génnagul mais tamit euh, am na ay yeneen liggéey yoo xam ne dañ koy def te lu nekk jànqeen mais da ngay gis ay membre jànqeen yëpp nekk ci cest à du nekk du nekk jànqeen quoi mais am na ay membre jànqeen yu ciy nekk parce que ay sélection lay nekk waaw sélection parce que xam nga liggéey bi moo dem ba toll foo xamante ni d'accord group am na mais léegi boo xoolee dootul doon groupe parce que affaire yi bu fekkee dafay jaar yoon dafay mel ni match de football kenn ku ne dafay am loo war a def ci terrain bi kii dafay nekk góol kii day nekk ailier gauche kii day nekk neuf kii day nekk défenseur cest à tey boo amee group tey am loo xam ne da nga koy soxla parce que nekk ci groupe bi da nga koy uti su yàggee rek da am sélection parce que da nga naan lii daal vraiment diw moo ko mën naa ko jëlee mu defal ma ko lii doo ko mën naa ko jëlee mu parce que da ngay xam ni ñi fi nekk sax peut-être mën nañ ko def. mais lii nga ci bëgg ak niveau bi ni ngay bëggee mu yéeg il fallait que nga jëli diw pour nga am loolu souvent noon lay deme moo tax day dem ba genre day nekk sélection moo tax ngay gis léegi troupe kees di jouer ay artiste Dakar di nga wala artiste Ndar di jouer non noonu lay demee parce que affaire bi affaire bi moo foofu bu njëkk da nga doon gis jànqeen kese mooy jouer artiste jànqeen kese wala beneen troupe mooy jouer ñooñu seen artiste kese mais léegi affaire bi dépassé na foofu léegi dañuy xool nekk ci mën def assuré ko comme ni ñu ko bëggee ñu woo ko ko kaay nga def ko waaw loolu loolu tamit yàgg dañ ma ko yàgg laaj mais xam nga man yàlla daf maa may benn jikko man lu ma xase def pare naa ci mën naa ni mun naa def ba pare mais réaction publique bi laay xaar man parce que mun naa def mu neex ma nit ki mun na seetaan du ko neex mën naa def man du ma neex nit ki seetaan mu neex ko mais majeure partie bi bu fekkee neex na leen dama naan ah kon li ma joxe baax na kon man. Euh, après sama sama xalaat ci lan lay daw non ma nekk di insister ci li ma defoon parce que day tax doo inspiré wu am na ñoo xam ne dañu am parce que dañuy def benn affaire rek mu neex ñoom ñoo ko def mu neex boo génnee ñun la lii nga def neex na nga nekk ci loolu di ci xalaat ba dootu ma a inspiré wu pour def leneen man su ma defee dara pare naa ko dama koy fàtte pour mu mën a créer leneen loo xamante ni bu dikkee lee dañ koy fàtte dootuma ci sax xalaatati. non non xam nga yow di nga fi ñëw yaa ngi fekk sama jabar ak samay doom si kaw ñoom seen yoon ñoom duñ faal lool parce que li may yi ci télé bi ma nekkee ci kër bi man ak ñoom lool la ñuy def su ma nekkee ci kër gi man ak ñoom loolu la ñuy def fii léegi ñu toog fii ci chaise yi fii ci cour bi fii di fo ñu toog man ma leen di feccal sama doom yi ma leen di feccal di di di leen saboté di leen ñaawal ñuy daw di ma song di di di ma dóor may dóorante ak ñoom loolu la ñuy def. amul benn problème sama diggante ak ñoom parce que waruñu ma ragal mais dañ ma war a respecter rek te loolu moo am parce ay xale lañ ki ci mag 12 ans la am duñu ay mag quoi ay xale lañ mais dama leen di miinal sama bopp ba nga xamante parce que li may nekk ak ñoom bariwul bariwul dañ may dañ dañuy toog benn des fois lu yàgg duñ ma gis kon ñoom sama diggante ak ñoom moom mooy moment bi ñu may gis rek dañoo war a bég dañoo war a kontaan voilà ah ñu ngi ci projet yu bari. ñu ngi ci projet yu bari parce que ñoo ngi ñoo ngi tournage nii ñoo ngi war a am film bu tudd Mbetteel war a daw RTS euh, à partir de la onze la ñuy commencé diffuser muy am chaque mardi ak samedi la onze bi donc moo tax liggéey bi tànc ñi nii mu xaw a metti boo gisee ni ma mel ni xam ni gaa ngi ci liggéey bu metti loolu benn projet la am nañ ay yeneen projet parce que ñun dañu am non mooy li ma wax sélection la waa jànqeen ñoo ci nekk mais am na ay yeneen ñu ci nekk xam nga et puis am nañ ay projet quoi bëgg nañ def commencé waat di def ay spectacle sur scène nit ñi ñëw taxaw di ñu seetaan ci beneen facette bu bokkul ak ay téléfilm téléfilm yomb na trop koo woo mu ñu def ko mais ñu nga xam ne ay acteurs lañ mooy suñu métier bëgg nañu commencé waat ci ay projet di assurer ay spectacle yu mag gars yi di jënd ay billets yu cher comme ni ko yeneen dëkk yi defee ñëw nag. parce que nit ki mënul jënd bee bu cher nga koy fontoo di ko def ay yëfu xusur xasar ay xunjung xanjang defal leen ay spectacle yu minime di ñu kontaan gis ni gars yi kat joué nañ loolu dafa war a amaat loolu suñu ay projet la ñu ngi ci xam nga mais nag euh, dañu am benn problème parce que des na ba tey gars yi wax nañ ba sonn pour ñu jàppale artistes yi Sénégal bëriwul ay producteurs sinon da nga naan amul mais ay businessman la am ku ñëw dugal xaalisam pour am bien que producteur bi sax noonu lay deme mais tey li tax nga naan ngay jàppee kii man mooy moom gëmul lu muy def moom xaalis rek la soxla mais tey vrai producteur moom da ngay nekk koo xam ne nga gëm métier bi tey di ci def des fois nga gagné des nga perte mais am ni ñoo xam dañu ñëw nii rek ah lii kat mën naa ci dugal 1000 francs après mu am ci 5000 mu dugg bu defee ñaar ñett gagné ci baax na suba bu perte mu daw. producteur bu perte mi ngi fa bu gagné mi ngi fa c'est comme c'est comme Gaston Mbengue ci làmb ci kooku promoteur la su gagné mi ngi fa su perte mi ngi fa pendant vingt ans pendant vingt cinq ans amuñu loolu ñun ay businessman la ñu am ñuy dugg tey suba ñu daw kon tey jii nii production bi ñu nekk nii tey jii amul kenn ku ci dugal xaalisam pour produire ñu suñuy moyen bopp la ñuy demee may gërëm bu baax di remercier Racine Talla directeur RTS parce que moom moo njëkk def première pas yi pour production bi mën a taxaw moo génne xaalis teg ci taabal ji ni dem leen ngeen liggéey te loolu du lu ndaw acte bu bu noble la def parce que ñi ko mën bëri nañ te defuñu ko kon loolu dañ koy dañ koy dañ defee nag loo xam ne dañ ko ciy sant parce que wane na ne bëgg na gaa yi liggéey war na affaire bi taxaw mais damay lancer message comme quoi que ni am na ay production yu nekk Sénégal ay kilifa di ci dugal seen loxo te kilifa yooyu kilifa yu nguur gi te Sénégal amul xaj ak seen tey ni ñuy war a dimbalee Mbaye Ndiaye wala Omar Ndiaye noonu leen war a dimbalee Massamba parce que ñun ñëpp produire lañ ay production la ñu def ñun ñëpp réew mi moo tax ñuy liggéey ñun ñëpp dañuy liggéey pour sénégalais kontaan parce que tey jii nii production bi ñu ko defee pare bu ñuy diffuser ci télé bi ñëpp ngi toog seen kër di seetaan ku amoon problème fàtte nga ko ku meroon yaa ngi reetaan yaa ngi dégg tey jii nii lu baree baree bare ñun ak samay morom dañ koy génne ci bopp nit ñi ko kon ñun li may wax ne médecin warul feebar ki war a faj nit ñi bu feebaree nit ñi am nañ problème kon ñun war nañ ñoo jàppale ba du ñu am problème du ñu am stress xaaruñu kenn nag parce que yaakaaruñu kenn yàlla lañ yaakaar ñi ngi liggéey ñi ngi daan suñ doole yàlla mi ngi ñuy suturaal man de ak ñi ma àndal di liggéey loolu lañ gëm xaaruñu kenn mais ni ñuy jàppale yeneen production yi di jël xaalis di ko ci def war na ñoo jàppale war ñoo jàppale ñun war nañoo jàppale bu baax parce que tey jii nii man du ma tëdd du ma nelaw du ma yendal du ma fanaanal chaque jour maa ngi ci terrain bi maa ngi ci maa ngi tourné su ma paree tournage maa ngi songu gars yi xam nga pour ñu jël seen alal dugal ko ci man ñaanuma du ma ñaan kenn xaalis parce que damay liggéey mais dama ni lii ñu nekk nii production la boo xam ne ay millions ñoo koy def su ma la waxee diggante démb tey li ñuy financé danga naa ma loolu mënul nekk et que tey boo tourné benn dix jours bul xam ñaata million ngay dépensé parce que defuñu ay yëfu ay yëfu taxalaatu dañuy def vraie production ay acteurs yu mag ñooy joué da nga leen defay ay cachet yu mel ni midi da nga da ngay tourné tournage bu jaar yoon boo xam ne da ngay jël sa temps di tourné tournage bu jaar yoon nag kuñ ko wax boo xam ne dangay jël sa temps di tourné kenn ku nekk xam nga lan moo ci nekk ci ay frais kon man damay lancer message surtout mi ngi am mi ngi am parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ ci dara dañuy fréquenter mi la yëpp mais maa ngi wax gars yi nañu ñu jàppale li ñuy defal ñenn ñi ñu ñu koy defal et di wax Marème fay sàll fondation bi mu yor ñu jàppale artistes yi di leen financer ñuy liggéey ñun ci réew mi lañ bokk yàgg œuvre pendant dix-huit ans sama première pièce bi ma koy joué aw ma vingt-quatre ans di joué ay rôle pas ñëpp foog ne pas là parce que loolu laa jàngee théâtre muy sama métier ma maîtriser ko bu baax lu ma ci bëgg a def ma def ko ci amul benn artiste ci suñu génération suñu génération amul benn artiste boo xam ne def na lu ëpp li ma def ci Sénégal amul te boobu ba tey ñi ngi koy maintenir ñi ngi téye kab bi di ko maintenir lu ne xew na fi artiste bu nekk génn na fi mais suñu waxantee dëgg xam na ni Serigne Ngagne barki démb ak barkaat démb ba tey mi ngi fi mu ngi def ay production mi ngi joué te am na artiste yoo xam ne tey kenn tuddatu leen te ci incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam loolu dañ koy gis ba keroog may taxaw naan bàyyi na man dañ koy gis ba keroog may taxaw naan bàyyi na maa ngi wax Marème Faye Sall production la ñu nekk ni ñuy jàppalee ñeneen ñi nañu dugal seen loxo ci lii nañu def jàppale ñu ban pooj pooj ji ma def laa bari de noo man kii fi ne mënutuma wane pooj ndax waxuma lay pooj mais moo lay sax amatuma ko amatuma sax ay moolay sama kàddu bu mujj mooy yéen di leen sant di leen gërëm parce que man wa may wax gars yi man kees waa la man sama papa ak suma yaay Dakar dañ juddoo sama maam moo ñëw fii liggéey sama monde ñu ñëw dëkk fi mais samay papa ak sama yaay Dakar lañ juddoo mais man fii laa juddo kees lu ma am ci àdduna kees dama naan lu ma am ci àdduna Sénégal ma ko gënal biir Sénégal lu ma am kees ma ko gënal kees lu ma am fii ma dëkk moom ma gënal muy këri kaw mais yéen a leen di remercier ba pare di kontaan parce que lii yëfu kees la kenn ku nekk war na ci dugal loxoom pour mu jëm ci kanam boo xoolee boobu ba léegi li tax lii mënul am mooy ci liñ nekk nii mais kon am na bu doon fii ba Kirikoro ngeen woo ñu dañuy ñëw parce que lépp lu nekk kees rek bëgg nañ mu avancer mu dem ci kanam di remercier monsieur le maire Diatara di remercier Talla la bien que man musuma defal dara mais xam naa ne ku gëm kees man ku bëgg kees rek bëgg naa la mais Diatara dama koy gërëm. parce que lu ñu mës a organiser dee na ci dugal na ci alalam def na ci lu mën ak lu mënul te lépp bëgg kees avancé bëgg kees dem ci kanam ñun nag ay artistes lañu ku ñu defal bu ñu toogee ci média bi dañ koy wax ku ñu defalul dara nag am na droit tey suñu gémmiñ duñu wax defaloon dara mais dañuy noppi kon jatara naa ko gërëm et di wax ni euh, site bii nga xamante ni tey jii kees kees 24 yàlla na dem ba mel ni France 24 yàlla mën na ko foofu laay daal ne sama kàddu du leen gërëm di leen wax ni kontaan na vraiment bu ngeen ma soxlaatee benn yoon woon maa ngi seen wet gars yi ku ngeen ci soxla ñu ngi ci tournage bi da ngeen koy am su ñëwaatee kees su leen neexee ngeen ñëw ci tournage bi ngeen am ay ay ay ay lu ngeen am ay yu sew yi ngeen am ay kaan ak ay poobar ngeen waxtaanaal ak gars yi ci biir tournage bu leen neexee may nañ leen loolu ngeen ñëw am ko ci tournage bi heure bu ngeen ko bëggee am benn problème merci beaucoup.